champion nuyu naa la. nice guy mais am ah. tey sama yaram dafa daw. Ah. bi nga dugg si amateur yëpp jóg. waaw <laughs> waaw loolu jaadu na parce que tamit sumay nit lañu sumay waay lañ te vraiment nit ñi loo loo rek loolu lañ lay fay xam naa ne bëgg nañ ma trop mais maa leen raw waaw. mais ama lamb ji fi tak na tak na tak. lamb ji tak na ama combat yu mag ba tey am ak fi sama bi toll. waaw lamb nag yàgg na baaxoo loolu. des fois mun a bëri dem ci biir yéex des fois mu yéex fin bi neex waaw mais lamb ji moom gis naa ne ay combat yi neex ay grand contre petit mi fi lamb ji daa gis naa dina dox quoi. sa ñaari rakk ay petit bàyyi ko Pikine bëgg a sonn ko grand yi kenn ki di Ama Baldé kenn ki di Balla Gaye 2 est-ce que ay combat yu possible la. surtout Boy Niang est-ce que combat possible waaw combat yi neex na nag vraiment presque que euh, mbër yu ndaw ngeen leen a tuddee du ñu ay mbër yu ndaw parce que bu ne te il est làmb moo leen boole ak ñoom fa la gars yi jëm amatul buntu yoon la pour ñu bëre ñoom waaw di leen ñaanal ku ci mel ne Ama Baldé maa ngi koy ñaanal booy ñaam maa ngi koy ñaanal bu combat bi tax yàlla may ko ci ndam. sa diggante ak Bombardier la toll. waa ñu ngi koy dox nag. waaw mais yàlla dafa na sotteegul mais xam naa du dara di ngeen ko dégg incha allah. sa diggante Ba lan la. waaw soo doomu day sama frère di sama xarit vraiment sekki jàmm nekk ay vrai xarit nag sama frère la ah. du la ma jàppee du ministre laa ko jàppee waaw parce que am na leneen lu ñu dund kon kooku suma nit la di ko sandi sandi njabootam bi yëpp ah ñëpp ci nekk maa sant waaw. takk ñaareel. non ñaar moom <laughs> bu ko yàlla tuddee ci kanam. Eh, waxal am ma. ma wala jël.